jë jëwoon ci diwaanu Thiès ak Mariam Diagne mënu fa faat tey jii la ab robam Assane Gueye mi nu toppee paat gi nag ay mbokkam di sàkku ñu yóbbu ko jamono yi hôpital coronavirus geeg njeexite yi ci wàllu koom jaaykat yenn wi fu ci mel ni marché du port ay jafe-jafey nen jotatunul ci ni mu waree ci marchandise yi clients yi ñoom comprendre ñu leen wàllu yokk gi rawatina ministère économie moom xëy wooteem ndaje ndaje bi lam ci jublu mooy fexe ba secteur yëpp partenaire économique yi naka noonu ku ne euh, dugal sa loxo ci gafaga gi taxaw ci xeex beeg jàngoro coronavirus ARMP mi nga xamante ni CSE dafa yóbbuwoon a kalaame ginnaaw ONAS ba mu baaxee marché bi ab société bu fekk baax ci Allemagne CSE gàntal nañ pexeem boobe maanaam amu ca ndam euh, jàppe nañu ko nit ñu ne prendre acte du ñu def recours beneen bitim réew soxna Anna bu baax a baax Xaja euh, San coronavirus gis nañ ko ca Maroc malade bi euh, mu ngi ñuy fàcc jamono yi ci benn hôpital bu nekk Marrakech ci épidémie boobule gulet njiitu réewu Chine di dem ci diwaanu Wuhan ndox ndorteelu épidémie bi ak léegi Burkina Faso njiitu réew ma moom euh, jël na dogal kon daal di décréter ñaari fanu euh, dëj gannaaw boom gi ñu boom lu tollook ñeent fukk ñetti nit ci bët gannaaru réew ma ca Pays-Bas nag tàmbali nañ atek ñeenti nit yi nga xamante ne jàpp ne ni seen loxo setul euh, ci avion Malaysia Airlines ci bi daan woon ci atum 2014 te lu ëpp ñetti téeméeri nit ñàkkoon si seen bakkan jërëjëf Anna sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay maa ngi la fayal a li ci gën a fës yi lamb yi fas yéene xas xànc morom mi seen digganteeg waa CNG bi yore wàllu lamb ji loola gannaaw ci ba kuréel googee jëleeb dogal kon rëqandigu ñeent ci ñoom kenn ci ñoom sax di si toon dañ ko daal di kon dàqandi ñi dootul arbitrati à vie ci lamb ji danañ leen déglu ci biir ëttu xabaar yi moom itam dana ko tuumal ca Suède muy kon international sénégal bu yëngu ci wàllu football di Babacar Sarr dañ ko doon tuumal ay wàllu siifaateeg yu ni mel ca Norvège ne loolee nu ko wax lenn du ca dëgg lu mooy rek ay pexe ñu lal ngir càcc xaalisam danañ ca boole lu jëm ci wàllu procès dox diggante Baba Tandian ak maître Babacar Ndiaye ci basket ba dàqandi nañ ko ba ñaar fukki fan ak ci mi weer jërëjëf Malal yéenay kaay yeeg Mamadou mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM di waxtaanee li di njeexite yi ndet ndetteelu njëgu go pétrole bi ci adina am ci koom-koom bu Sénégal budget beeg walum fiscalité mooy waxtaan weeg RFM Abdoulaye Diop ci technique bi région d'antenne Oumar Diaw. di diwaanu Thiès la ñuy tambalé xibaari ak soxna Mariam diaj mi nu fa faat ay bés bi jàppale né borom tay ji lay doon ñukoy jëbël borom bi ginaaw bi nga xamanteni euh, li di autopsie gi kër docteur def nako ko euh, gis ne li ko paat na ci jam-jam fekkoon na it bobu soxna si nek ci ñetti weeram ci wàllug euh, won ak lor kii nu toppee rey gi nag Assane Gueye mu ngi ci poste police beneen ca Thiès njaboot gi ñoom la bëgg mooy ñu yóbbu ko ci hôpital Cheikh Anta ci leeral baagante di dem ci police centrale ñu bëri nag dikkoon pour xool si ki nga xamante ne moom mooy Assane Gueye waaye jamono yi dañ ko jël yóbbu ko ci beneen poste de police boo xamante ne bëgguñu nit ñi xam ko ngir wàllu kaaraange waaw pour lu wax la est xam nañu jóge na sa police centrale pour dem beneen xëy na comme dafa nekk ci yi yoon yoon moo xam li tax mu koy jëlee fii di ko yóbbu fële duñ ci mën a prononcé wu bu baax a baax parce que mesures yi tax ñuy def loolu ñoom ñoo ko xam mais pour le moment daal moom xam naa ne mi ngi ci loxoy yoon. génn ci ay jegeñaaleem duggoon seet ko bi mu génnee de wax ne Assane jamono yi de sonn na lool. gis naa ko am nay gaañu gaañu sonn na trop échangeante nañu man ak moom lim ma wax moom xam naa ne moom mi ngi réccu nit nag nit rek la mën a doon des fois nga gis koo xam ne bu defee li muy def ba pare lay réccu. Abdou Touré di cousin Assane maa ngi nag massa aw famille ñoom Marème di leen jaale mais rey dafa metti moom mi ko def regretté na ko réccu na ko Assane moom ma wax parce man lu ma fekkul aussi li ñu ma wax rek laa mën a wax ne ne bi ma duggee foofu wax ak maire bi waxtaan ak ñoom maire bi génne ma ne ko yow dof nga mare musula bëgg nee ma loolu moo ko poussé nag bu bu génnee mu wàññeeku bàcc taal mi nga xamante xaritam la lool wax ne nag tey jii dafa am ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu bopp ba tax na famille bi ñi ngi sàkku ñu yóbbu ko hôpital ngir ñu mën koo faj psychologiquement il a des problèmes on entendre guñ ko parce que bi police bi ma fekk fekk mu ci biir giri dama ko fekk ñu teg ko à côté parce que xëy na peut-être état de santé am ni mu toll moo tax mais ñenn ci ñi nga xamante ne jege nañ lool famille Marème Diagne ñee nañ de ginnaaw autopsie bi tey jii lañ ko fas denc ci janaase fii ci Thiès RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf Cheikh Anta wàllu yoon mbiri monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne ak euh, ki nga xamante ni mooy journaliste Pape Ali Niang moo di Niang naka noonu daal dinañu euh, ko dàq atte bi ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi fileeg booba ñu fay li nga xamante ni mooy wàllu consignation gi fàttali ni moom jëwriñ ji Cheikh Oumar Anne moo defoon citation directe journaliste bi di Pape Ali Niang moo di Niang naka noonu ginnaaw euh, bi mu bindee téere moom journaliste bi jëm ci wàllug lu mu duppee scandale au cœur de la République jukki woon ca mbiri kudd kudd mi ministre bi jité won laata ak palum nepp ministre lenen ci xibaar ak RFM ba de an ak li nga xamanteni ni atep ARMP jàll dina ONAS ak marché beeg mu ko joxone société bu fet xeetu ci Allemagne di lu CSE euh, andul won ba waraloon mu def clamé amu ci euh, deug mom CSE jappé na ko nit prendre acte du def jéego benen leeral Abdoulaye Cissé. bésu 19 février ci atum 2020 ci la direction centrale des marchés publics gantalone marché bi nga xamné ni ONAS joxone na entreprise bi di Ludwig Pfeiffer ngir ñu sétal baie de bi defaale fa station de pompage ñaari fan ca gannaaw ci ñaar fukki fan ak ci février ONAS dem jéebaane ji ci comité de règlement des différends bu agence de régulation des marchés publics ndax xamul lutax direction centrale bëggoon gantal marché bi marché liggéey bu toll ci fukki milliards ak juróom ak juróomi téeméeri millions ak lu topp ci ay weccet ci ni conseil de régulation des marchés publics jébbal na ko ONAS ci xalaatam bu mujj jàpp ci ni comité de règlement des différents nee entreprise ibi de di construction yi doon di te lëkkaloo woon ak CSE mataluñu yenn ci ponk yi nga xam ne nii ci wàllub expérience la ngir mën a def liggéey bi ba tax na conseil de régulation des marchés publics nena ONAS mën naa tàmbaliwaat liggéey bi lëkkaloo ci ak entreprise allemande bi di Ludwig Pfeiffer ndax nag comité de régulation des marchés publics Diapunani ONAS teg lepp ci yoon ba dara doxatul digante ONAS ak ñeneen ñi ci An bu BDAN war am ci liggéey bi. jërëjëf Abdoulaye mbégte googe am na ci waa BDAN ONAS naka noonu rafetlu àtteb ARMP jamono yu CSE mi defoon kalaame gi ne déggee na ko ni Kumba Tchouli, euh, li euh, agence de régulation des marchés publics joxaat Boblep marché Ludwig Pfeiffer groupe Ligue boblep lépp fare Allemagne mën Tambali tàmbali Niel des dépollution bu beeda aan ay recours jóge woon ci groupe liggéeyukaay mu euh, compagnie sahélienne d'entreprise. entreprise wante CSE mel na ni kuy teg réclamation du ko ci lettre réclamation du groupe groupement bi on a chef de file groupement de moo ko de def def Légi, maintenant ARMB, lan lay wax day wax ONAS mu xoolaat évaluation talaat xoolaat évaluation évaluer ne risques yi évaluer ne comment comment dit porter projet bi intérêt projet bi ñom jël nañu décision ñun di ñu defaat réclamation l'ARMP nee na loon mbir yi fukki at gannaaw gi l'office national de l'assainissement du Sénégal di rafetlu boobu lepp dogal bu ARMP na Gagny saxo moy directeur général ba ati am ak kontaan mais mbégte ak content surtout pour ñi dëkk an Thiaroye Mbao ñi nga xamé ne mat nañu gën a millions. million nit pour projet bi nga xamee ne ñu ngi koy xaar ba léegi mën a démarrer ñun rek li ñuy def dañuy des jëmtu ci liggéey bi pour lépp jëm kanam kàddoom yooyu wéetu ci Mbacke Seck di wax ci turu ñu dëkkee ci la fa rek beeda an jàpp ne boobu lépp dogal dafay dëggal rek ne ci jox nu boobu lépp marché onance sàlloo nak yoon mbégte bu njëkk bi mooy wane ni que mbiru marché yi suñu dëkk aw na li ñu confirmer li onance waxoon jox ko même entreprise ñun nag yàkkamti woon nañu lii jeex ba projet bi démarré financement boobu lépp projet tollu ci juróom ñaar fukki milliards ak juróom-ñett ci suñu koppar doon ab agence française de développement waaye it coopération hollandaise jërëjëf soxna Koumba Sandiane Faye ñu waxtaanee euh, wér-gu-yaram a coronavirus ge ki njeexiteem bu weesoo ci wàllu wér-gu-yaram wàllu koom-koom euh, misaal gi ñenn ci commerçant doomu Sénégal euh, ca sànce ci marché port fii ci Ndakaaru ñoom ak i jafe-jafe fa daa jëlee marchandise gi wàññi ko am na ci donte yenn ci clients yi du mënoon ko déggee ndax dem ba jàpp sax ni ñoom ñooy ñi waa yokk njëg yi ca ni nu ko waxee demeewu ni jafe-jafe jotam marchandise ca la ndax coronavirus gi Salimata Aw ay clients yuy ñëw ci marché ba di wut téléphone wala ya muy àndal mu ngi ci marché Alizé muy bërëb boo xamante ni ñëpp a ko xam ci njënd njaayum telefon wante fi toll ni njaay mi doxut li ko waral moom mooy lii di coronavirus Moustapha jiite kenn ci ñoom. yor fa boutique di ñu xamal ni fi mu toll nii lépp ni tekk. ñun suñu bagage yu bari day am yu jóge foofu mais temps yi moom bagage dafa manqué bu a baax accessoires bu baax a ba am na sag bu fi yoroon mais instant bi moom bagage yi sentir ko moom affaire moom laal na fépp moom wax dëgg faa la am na yeneen dëkk sax mais Siin mooy gën a lii quoi. Siin mooy gën a accessible li nga mën a def Siin yeneen doo ko mën a def si yeneen dëkk yi quoi waaw day seet trop trop par ak si. Lamine keneen ci ñoom moom nag mu ñuy xamal ni li tax marché bi ni tekk tekkaaral grossistes yi ñoom ñoo faral di am marchandise te fi mu toll nii yëf yi dafa yokk lool. ñu amoon stock bu njëkk daal instant bi moo ñooy jaay loolu moo tax nag affaire yi yokku quoi comme exemple loo daan jëndee cinquante mille instant bi yaa ngi koy portable boo daan jëndee cinquante mille yaa ngi koy jëndee cinquante cinq mille wala soixante mille fa yokk kay cinq mille wala au moins sept mille cinq cent waaw waaw ñun moom bu ñu ko gisee dañ koy jënd mais pour le l'instant nii pour nga gis ko sax problème la lu ni mel la ñu ne mekk si jaaykatu appareil électroménager yi fii nag moom li leen di gën a sonal mooy nee na client yi bugguñoo comprendre benn yoon waaw télé frigo yi téléphone yi accessoires yëpp daal waaw instant yi moom taxaw na ko carrément ndax client yenn saa yi leen di wax mais duñ gëm quoi pour ñoom ñu ñoo ko yokk quoi mais fekk na bagage yi bagage moo amul gaa yi jot a wàccee bagage dañoo yokk bagage. fi mu toll nii nag lu ci bëri ci suñu commerçant yi ña ngay ravitaillé woo ca Chine ngir seeni njaay te foofee sa Chine lépp a taxaw ba tax na loolu day feeñ bu baax ci commerce bi fii ci marché Alizé.

ministère bi yor koom bi di wo bépp secteur mu dal ci sóob loxoom loole nak ngir dal di gën a mën a yokk koom yi nga xamantane ne moom lañ ci dugal ngir xeex li di coronavirus bi ñu ànd ceeg ministère de la santé et de l'action sociale ngir ministre de l'économie loole dafa doon lu war Amadou Hott. gouvernement du Sénégal. gouvernement bi kay li war a jiitu ci ay mbiram mooy fexe ba ci wàllu koom-koom ñu bañ a am ay gàkk-gàkk ndax nag feebar bi bu lawee ah mën naa yàq lu bari de wax dëgg. atténuer son impact sur notre économie. ngir Amadou Hott nag. koom yooyu ñu ci yokk dana tax ñu daal di gën a mën a fagandiku ba lii di Covid 19 di bañ a law ci réew mi. je pense notamment ci wàllu koom-koom wax dëgg tourisme ak transport feebar bu ñu ne day law ah mën naa indi gàllankoor yu bare bare te lu ñu war a jël ay pexe la ndax feebar bi mën na ko gàllankoor dëgg-dëgg ndax nag wàllu dem beeg dikk bi moom bu nu ko gàntalee rek euh, du baax. la demande mondiale. Khalad Binimel Naka, ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sar, deful Rafet Rafet Louko. est day déjà solidarité gouvernementale mais partenaires techniques et financiers yi xamante ne ñoom ñooy jàppale réew mi itam dañoo am ñaari tutelle ku nekk secteur bi ngay jàppale sa tutelle la mais ministre de l'économie de la coopération et du plan parce que dañu dégg si biir coopération moom tam sa tutelle la moo tax taxawaayam day firndeel ne effectivement li ñu def am na solo lool am na ñu nekk si force de l'ordre et de sécurité yi am na ñu nekk si secteur agriculture am na ñu nekk secteur élevage am na ñu nekk si euh, secteur privé etc. Taxaway Bobé itamit le partenaire économique daal di am waa système des nations unies di rafetlu itam doxalin Bobé, atelier bi lé une occasion ngir ñu daal di mën bépp sénégalais ci bépp secteur bu mu bokku. mu daal ciy soob loxoom. jërëjëf Nafisatu ci xeex bi ba tey ak euh, këruk euh, koppar yi nga xamante ni euh, ñoom dugal nañ ci yoxo yi muy FMI banque mondiale naka noonu noppi nañ ñaari këruk Bretton Woods yooyu dugal juróom-benn fukk ak ñaar ci milliards dollars ci xeex bi ONU mbootaayu xeet yi naka noonu Union africaine CEDEAO it donte ñoom ñaari yooyu mbootaay ñu mujjee tudd jéego yi barewu ni Mouhamed Ali Mouba FMI moo njëkk génnee xaalis ngir jàppale réew yi ci coronavirus bi lu ëpp ñetti junni milliards de francs CFA juroom ñaari témèr yi dañ koy joxé danaka duñ ci dugal ben intérêt bo gissé FMI def li nu mel dafa fekk dañoo bëgg jappalé comme aduna bi ndaxte dañoo japp ni comme bi dafa ralentir té bo moyul bu 2020 bi moy gëna wacc bu 2019 bi Afrique nak bok na ci ñi gëna a am problème motax dañ leen di yokal financement bi ngir ñu mëna a coronavirus bi af dina bok ci ñuy njëkk sedd banque mondiale mom item, génne na xaalis 12 milliards d'euros lolu nak mi ngi amé ci temps baril pétrole bi mi ngi continuer di wacc 30 dollars fu situation bu metti le pour pays yi yor pétrole di surtout pays yi nekk ci Afrique pays producteur pétrole Nigeria, Angola Congo Brazzaville Algérie wala Afrique du Sud ñooñu nag du lii mooy gulet ñu commencé am problème ndaxte depuis choc pétrolier bu 2014 2016 bi bokk nañ ci ñi gën a lot te fu mu toll nii fukk ak juróom-benn réew yi nekk ci. Afrique jot nañ leen catalogue ni dañoo jàpp ni ñoom lu ñu leb dafa ëpp te pays exportateur pétrole bokk nañ ci bu baax a baax. Mouhamed Ali Touba Sénégal nag ba tey lu ñeel jàngoro jeeg fan ci toll mooy ci ñetti cas yëfi ba fiile euh, macha allah fàttali it ne juróom-benn euh, yi nga xamante ni amoon nañu njort ci ñoom ba defoon si euh, ceet geeg gëstu gi fii Ndakaaru muy test bawoo woon ci Thiès dellu nañu ci anami négatif amuñu jàngoro ji kon ni ko waxee Sénégal a ngi ci ñetti cas xeex baa ngi wéy ci bépp fànn bokk na ca ñi ci xëyee ci subaak léegi waa Ligue de imams prédicateurs bu Sénégal di ci amalam ndaje lëngoo ci forum islamique bu ci jugee ngoon 14h ci kanam tuuti kon am janook taskatu xibaar yi ba tey ci wàllu fàggandiku gi ministère de la santé nas na am ndaje diggam ak patron de presse yi ngoon lay doon. ak RFM kumpa jeex na. SAES di euh, syndicat jàngalekat yi ci daara yu kawe yi cib grève étudiants yi nag xëy tey jile euh, di ci am njaqare ndax euh, du teede travaux dirigés bu nu def du leneen dañuy am njort nag ngir seen examen yi ñëw bu nu sañoon professeurs yi ba na yàgg ci lii di grève bi Aïssatou Faye Bodian ay groupe d'étudiants ñi buñu di xol cahier ñen ñi taxaw faculté de droit Fatou Kiné Cissé moom première année la nekk di ñu xamal ni démb ba tey deful cours. tey am na am nañ cours euh, mais defuñu ko prof ñëwuñu même démb tamit même prof ñëwuñu waan tamit. Euh, fële ca faculté bu médecine li mel lañ fa daal di nemmeeku étudiants yi bëriwuñu fa loolu moom sax la ñu fekk mu daal di toog ci couloir yi di ñu ne amul cours waaye rek day préparer lii di examen yom yi. amuñu cours parce que professeur dañu nekk en grève te en général bu ñu nekk en grève dañuy arrêté moo tax tey ñu toog fii fii pour euh, jang suñu leçon pour préparer examen ñu ngi am examen yi à partir du 23 mars. gannaaw bi ñu leen laajee impactu grève bi ci seen examen li lañ ci daal di tontu. dina am impact parce que bu fekkee cours yi jeexul tamit euh, il y a des matières yoo xamante ni euh, on risque même que matières yooyu bañ a nekk ci examen yi donc dina am impact moom sûrement. gëwuma ko parce que le 23 bi la ñuy dem examen mais ci suma bëgg-bëgg moom bëgguma mu impacté ko parce que bëgg naa ñu jàng ko def ko après ñu jàll ci leen. Atifateli, euh, syndicat autonome de l'enseignement supérieur euh, disais bokuna e bokk lage, ci la andi laaj euh, mooy ñu daal di ay ci gouvernance bu université publique waitamit waaye topoto, ñu nouveau bachelier yu atum 2019 ak yeneni ponko yu ci jërëjëf euh, soxna fait Faye ñu dem ba Ziguinchor ak opération féexal diwaan ga di Nous désencombrement euh, bu nu fa daal di jóge tey tey jile ca garasu diwaan ga Ziguinchor lu ëpp ñaari téeméeri cantine yu woon ci anam yu ni euh, demeewul daal dinañ ko fa ba préfecture ak fas nañ ci waxtu yi di amal opération gox Ziguinchor ouvrier yu bëri yéeg ci ay cantine di leen dajji bu ñu paree jël pièces yi ci biir camion yi ay bulldozer nag ci benn fànn bi di daaneel cantine yi nga xam ne ñoo gën a dëgër ci xayma weesu na ñaari téeméeri cantine yi nga xam ne daaneel nañ ko tey ci suba ca gaaru routière bu Ziguinchor opération bi nag waa mairie ñoo ko amal ànd ceeg préfecture ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi Seydou Sané premier adjoint au maire bu commune bu Ziguinchor. ëpp na ñaari téeméeri cantine yi nga xam ne yooyu la ñu dëgër fii tey la ñuy génnee te ñu ngi

moom mu ñëw jàppale ju ñu mën a tey mu nekk dëgg si ñun. opération yooyu nag nañ ko wéyal buñ sukkandiko ci kàddu Seydou Sané. li ñu song tey dañ koy def si yoonu Ziguinchor parce que Ziguinchor lu ci bëri boo leen demee 54 am na ay camions yu bëri yi nga xam ne ay épave lañu. yu yàqu ñu sànni leen foofu doo xam sa borom. le 23 bi ñaar fukk ak ñett ci ci weer bi foofu la ñuy attaqué am nañu planification bu ñu def ak préfet. du ñu yem ci loolu yoon yi yëpp yi nga xam ne dañuy dañu fat il faut ñu génnee pour permettre nit ñi di circuler normalement jam am sécurité am. hygiène euh, am. préfet bu Ziguinchor di El Hadj Madické Dramé teewee na opération de désencombrement yooyee yëkkati na fa ay kàddu nag wone ne xalaat la bi nga xam ne mu ngi tukkee ci njiitu réew mi moom lañ bëgg jëmmal Lamine Ba Ziguinchor fi Futurs Médias. RFM bitim réew. ñu tàmbale ko soxna Anna Rochak Burkina Faso ñu ngi cib dëj. Euh, dëcc euh, ba tax na njiitu réew ma daal di jël dogal décrété ñaari euh, fanu dëcc gannaaw kon boom gi ñu boom lu tollook ñeent fukk ak ñetti nit ci bët gànnaaru réew ma kon mu ngi amee ni ki dimanche kii lay weesu Adja Marie président bu Burkina Faso wax na ni tey talaata ak ëllëg àllarba ay bési dëj la pour waa réew mi yëpp loolu nag président Roch Marc Christian Kaboré moo ko xamle ci compte Twitter am ngir nakarlu attentat terroriste ba am ca bët gànnaaru réew ma te ñeent fukk ak ñeent nit ñàkk ci seen bakkan di biir gi weesu ab groupe fipp yu ñu ràññeewul cong nañu ay wilaas ca Dingala ak Barga ay dëkk yu nekk ca province bu Yatenga ci diirub dëj bi nag dinañu wàcce drapeau yi dakkal xumbuteef Fidna fitna bi am foofu na ba assemblée nationale ba woté woon ab loi ngir digle ñu recruter ay volontaire ngir jàmmarloo ak jihadiste yi ci ndigalu ñitu réew ma waaye sib ay groupe yu Adja Marie Thiam ñu koy gërëm dem ba Maroc ana ak ñetteelu cas coronavirus. ñu ngi koy gis ci ab doomu France boo xamante ne juróom-ñaari fan ci weeru mars gi weesu le euh, egg fa diwaan gi ñu naan Marrakech jamono yi mu ngi ñu rawale ca hôpitalu Marrakech bu ñu sukkandikoo kon euh, ci euh, ministère bi ñu denk wàllu santé bi wérgu yaram bi foofe kon Maroc nag am na yenn ci ñi matuwaay yi nga xamante ne daal dina ko jël mooy daal dinañ ajandi lépp ay vol bu jóge wala di ñëw euh, kon euh, Italie leeral yi ak Xadim euh, Mbay ca Casablanca. beneen jéego bu yees jëm ci li nga xam ni moo di coronavirus buy dugg fii ci Maroc gannaaw ba ñu enregistré ñetteel bi ka test ko Covid 19 mu nekk ab français touriste moom nag jamono ji ña ngi ko hospitalisé fële nga xam ni moo di Marrakech waaye royaume bi moom mi ngi woy ba tey nekk ci li nga xam ni moo di phase bi jëm ci xeex waaye tey fexe rek mën faagaagal. lépp loo xam ni dafa ñeel li di covid 19 jamono ji nag ay manifesté ak ay vol yoo xam ni dañoo jëm Italie yi dañu ko suspendé gun waaye ci ñi nga xam ne jot yi marocain yi dafa mel ni seenu doxalin dara amul ci loo xam ni dañ ciy tiit jëm ci li nga xam ni moo di coronavirus bi tramway bu Casablanca ak bu Rabat ñi ngi dox di wéy train yi tamit marché yi naka noonu ñi ngi fees dell ba tey ñi nga xam ni nag moo ñeel ñaari premier cas yi ñu enregistré woon di ay marocain jóge itali ñoom ba léegi nii ñu leen hospitalisé ci Casablanca fu may jokkoo ak yéen ngir la rajo Futurs Médias ci euh, feebaru coronavirus bi ba tey gulet njiitu réewu Chine kon euh, di dem ci euh, diwaanu Wuhan depuis ou épidémie bi ak léegi Xi Jinping war a ak médecin ay malade waaye itam yenn ci ay responsable politique yi ak yenn ci askanou Wuhan fi nga xamante ne épidémie coronavirus bi Covid 19 bi bokk fa la tàmbalee xajasan ñu waxtaanee wàllum tukkeeg migrants yi lu ñeel moom mbir Ankara di réewum Turquie am na yaakaar accord am diggam Union européenne fi ci mars bi. Euh, en tout cas la njiital diplomatie bu euh, Turquie daal di euh, xamle gannaaw ndaje bi nga xamante ne amal nañ ko ni ki démb Bruxelles diggante président Erdogan ak njiital commission européenne waaye itam njiital conseil européen Fateline, li andi chauli modi moo Turquie dafa waxoon ne dafa dina kon ubi ay buntam bu ko defee migrants yi mën a jàll dugg ci Europe yi kon euh, waral ñu daal convoquer convoqué lé euh, réunion euh, ba tax na jamono yi dal amna ay juni juni migrants yo xamante way tukki ñu ngi ñu bloquer falé ci frontière Grèce Pays-Bas Mom ubi nañ foofu àtte tay jilé ñeel vol MH17 bu Malaysia Airlines. Ñenti nit lañ fa wara atté ñetti doomu Russie ak benn doomu Ukraine ñom naal dañu jortune seen loxo setul ci crash bi nga xamante ne atum 2014 ba tax lu ëpp ñetti téméré ñitt ñakkon ci seen bakkan ndax nee nañu ñoom ñoo dal di andi missile yi nga xamante mo tax ñu dal di. Euh, euh, abattre. Hum. Euh, ñu Daniel. ñu Daniel, kon wa. ñu di euh, euh, kon <laughs> n'est-ce pas <laughs> maa ngi lay ziar Malal. maa ngi delloo ziar la Assane. lamb ji ci waxin lamb ji ak bëree ba léegi ci biir CNG bi la. waaw ca biir CNG ba la seen digg te diggante waa CNG ak arbitre noon na dama kon bëree loola gannaaw ci bu ñu jëlee dogal rëq ndigg yenn ci arbitre bokk nañ ci ñoom Sitor Ndour ak Malick Ngom. ñii ñu daal leen kon aj juróomi at yoo xam ne duñu ko arbitré moom Sitor dañu ko daal dañuy ko géejee nañu ko seppi nañu ko ci yëf yi bokkutu ca benn yoon loola nag ñoom ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg umu kalsum ab grève buñ doon amal ngir laaj condition liggéey yu mucc ayib Sitor Ndour nekk arbitre ci làmb ji ni décision commission règlement discipline bu CNG moom la gën a laal moom mile di ko mettit lu bi mooy accident parce que ñëpp xam nañ ni làmb ji demee nii làmb ji ni mu demee nii euh, dañuy toog muy gën di am tension ñuy gën di xool ne insécurité day am euh, tey jii boo jëloon euh, arène nationale insécurité bi fa am mun leen ko sax xam sooy soo paree combat bi nga koy xam léegi foofu ñu bëgg ne léegi ñu ne ñun ñun ñii risque yi ñu jël nañ ñu assurer au moins ñu assurer ñu mu nekk suñu sécurité sax léegi li ci def nag seeni wax mais au moins assurance beneen bi mooy respect texte yi respect texte yi li ñuy jot déjà dafa tuuti muy ñun ak ñi nekk ci région yi mais ñi nekk ci région yi c'est pire région yi di nga ci gis koo xam ne day arbitrer ñett ñu jox ko mille cinq cent wala ñu jox ko mille francs arbitre yi dañoo déposé woon benn mémorandum ci table CNG bi ci weeru sulet 2019 ngir laaj police assurance ak ñu xoolaat honoraires yi bokk ci ay ponk yi ñuy laaj bàyyi moom duñ ko def parce que euh, il faut ñu xam ne ñoom moomuñu làmb ji bëri fii lañ ko fekk ñun ay sportif lañ ci sport la ñuy yëngu donc euh, benn discipline buñ ko bëggee dañ ciy nekk du ñoom nag ñoo ñuy wax ne lamb ji da ngeen ciy génn parce que moomuñu ko li ñu def moo leen neexul li ñu def ne bu leen neexul waroon nañu am yeneen solution yu dul ah, da ngeen fiy jógee da ngeen fiy jógee du wax parce que ñoom moom ñëpp a ngi naan da ngeen fiy jógee mu ngi taxaw rek demul fenn donc décision yi bett ñu ñun dinañ waxtaan ak suñu mbokk arbitre yëpp suba région yeeg Dakar ak ñëpp ñu jël décision xam nan la ñuy yeggale xeex bi parce que xeex amuloon mais léegi xeex commencé na. benn plan ngir xeex daañu ko amal suba ci àllarba yi ginnaaw ab réunion commission centrale arbitre lamb yi Sitor Ndour ak ñooñu nag ne duñu bàyyi CNG di leen dicter luwaawam. c'est une lutte actuellement. et comme on dit xeex moom amul bàyyi sama tànk. kon coow laa ngi noonu. <laughs> xeex amul bàyyi sama tànk waa CNG nag sokk nañu ci suba si ak ñoom jokkoo ngir ñu indi ñoom itam seen euh, wax ci yëf yi waaye kenn ci waa CNG. nanguwut gutta yiy yàbbi ci euh, mbir yi ci nag ñeneen ñu ëllëg ci àllarba ji daan amal ndaje ngir xam naka la ñuy taxawee footballkat bii di Babacar Sarr doomu Sénégal moom mu ngi weddi ba mu set wicc tuumay viol yi nu ko toppee dana ko doon tuumal ay affaire u siifaate foofa ca Norvège ga mu doon football nee na nag lii daara du ca dëgg ab coro su mu nekkaloon foofa ca moom la réew te seen diggante tas moom moo rek taxaw temm ngir ronqi ci gafakaam ay koppar moo tax mu kaa tuumal ak yu mel noona waaye lenn du dëgg te fi mu ni moo ngi ay lawakaawam ngir ñu fexe daal ba coow loola sax ñu bakko mu daal su ndax itam dafa yàq deram ci àdduna bi Babacar Sarr jokkoon nañu ak moom ca Qatar ga mu nekk affaire u mandat bi samay avocat bi may waxee ñoom wax naa leen question yi ñu ne ma bon affaire u mandat bi ñoom nyom nyokai koy recevoir bu naree am lu ci am luñ teg sama kaw nyom nyokai koy recevoir donc euh, lima ma mën a wax mooy dama amoon problème ak euh, benn euh, xale bu jigéen donc man ak moom donc ci lu ci dafa dem pour ma détruire pour jéem a sama carrière ah, ci di sosal ay affaire de viol yoo xam te ne musuma ko musuma ko viol donc toute façon yàgg nañ koo dégg ci xale yu jigéen ñi tubaab yi ak ci joor ñu leen di tegal wala di leen tuumaal loo xamante ne defuñu pour jéem ci de l'argent ou par jalousie quoi parce que boo nekkee jigéen dem ta casé wu xam dañuy venger wala affaire en plus ak sen soutien ou journaliste donc euh, loolu la quoi ñuy détourné di wax lu léegi ça veut dire que donc yow yaa ngi sa club comment ça se passe là-bas ak sur le plan sportif fan nga toll. ça se passe très bien maa ngi si donc euh, maa suivre samay traitement maa faju bu baax donc léegi su ma faju en attendant ba xaw am benn espoir bu am te entraînement moo may ak quelques affaires léegi on verra après la suite lan moo ci am waaw peut être euh, ma signé dans un autre parce que amoon naa ay demande club yu bëri mais comme étant blessé doo jël benn euh, contre de risque contrat quoi instant yi maa ngi si maa ngi si jàmm maa ngi maa ngi bu baax. ñu jeexalee ci tënk basket football ak tiir. basket bi lañ ñu koy dooree coow itam am na foofa diggante Baba Tandian ak maître Babacar Ndiaye président ba fi woon ak président bi fii tey ji sax la ñu doon atte ca tribunal waaye dañu ko dàq ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi lu tax Baba Tandian indi na ci leeral. procès bi dañ ko renvoyé jusqu'au 24 mars parce que maître Silva euh, ñaari avocat yi ma consulté, maître Eladio, et maître Silva maître Silva nak mom moo yore fond de dossier bi de maître Silva dafa amoon benen salle bu mu euh, di fa plaider ben affaire familiale et instant bi ñu doon wo dossier bi pour plaider ko maître Silva mu ñu doon plaider euh, en même temps simultanément ci la salle bi donc maître Eladio a demander demandé le renvoi du dossier en attendant puisque boobu yorewul dossier bi ce qui est insolite moy la partie adverse gis nañu ko comme maître Silva nekk fa bon ñuy cëppi di insister pour que ñu retenir cette affaire là alors ma ma déy maître El Hadj ma ne ko nañ ko retenir parce que quand wax je connais le fond du dossier diffamation boobu ñuy wax eh bien man dinaa ko balayer de revers de main ce n'est pas parce que maintenant émission bi ma def démb nga xam ne xaw naa seddal compte tenu de ma nouvelle position par rapport à ce que j'ai je suis devenu c'est-à-dire président de ce Basket Club donc euh, cette posture là a fait que bon xëy na aussi dama xaw a yëkkati suma tànk mais bu fekkee maintenant avocat de parti adverse bi dañuy yaakaar ne que ay ragal la wala yu mais maintenant comme ko mettre 24 bu fekkee retenu le 24 eh bien bu faites institution seen position eh bien on va se défendre et ils verront exactement eh bien tout ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut mettre sur la place publique je le mettrai sur la place publique Nous na wax bi wax ci Ligue des champions euh, tey jii dinañu amal euh, huitième de finale retour yi dañ koy soobu tey ci lepsix, Leipzig mooy suy ak Tottenham Valence dina Aqua, Atalanta Bergame jeexal ak le tir danañ amal euh, ci dimanche ji Wakam coupe président fédération sénégalaise bu tir et chasse loola nak euh, nenañu dal daal euh, mbind mi door nañ ko te aljuma ji lañu koy dal di rek tej moy ñi ci bëgg bokk am ñetti compétition yo xamne ne des ko amal fofa muy jëm si euh, air comprimé amna tam benen xewtu fétal bo xamne ñu ko tubé skid trap dañ koy jëfëndiko mooy ay yëf yu ñuy sanni ni gaay di ci tiré di ñëkënte nga gis tubaab bi di koy fawee tam mm. amna tam benen bu ñu P22 booba Assane ci la gëna a mm. bobu tam dinañu ko def ci 20 mm. mètres Inshallah, allahu rabbi compétition yi wakaam la invité na la ci